rabbi fala sharika la fi mulkihi euh, laa taxjibi nafs lada zinzanatil xasadi wal xiqdi fada aqubu laa tuxjibu nafs bul tëjitit sa bopp itam tëj sa bopp lada zinzanatil xasadi ci maanaam euh, gri yoo xam ne ni griw ci ñaan la wal xiqdi ak bon xol ça loolu xuwaay duma lay lay jural mm-hmm. bon xol am na ñoo xam ne lu ñu manqué ci àdduna rek bon xol ko teg am na ñoo xam ne lu ñu manqué ci àdduna euh, iñaane nit ki moo leen ci moo leen ko def mm-hmm. da gis nit mu mu am ay teraanga yu judduwaalewul mm-hmm. fameem amuñu ko nga jiñ ko yu bon moomale ko fal xasadu iñaan awalu zanbin mooy bàkkaar bi nga xam ne moo njëkk ci bakkaar bi yarta kib nga xam ne mës na koo jëf aasin kuy mooy yàlla maanaam ba yàlla dee yàlla bind ay mbindeefam bàkkaar bi njëkk am bi njëkk a commettre mooy iñaan ah xaw nag moo ci gën a rëyam déet waaye mooy moom iñaan daal moo ci moo ci mag ci bàkkaar yi mooy seen taw mm-hmm. te iñaan synonyme mu xislaan na mooy torox c'est ça loolu selu bu bàkkaar la mm-hmm. ndax ki iñaan moom it daanaka mushrik la parce que dafa oppose yàlla moom dafa opposé ñu yàlla yàlla dafa ne diw mii de Mouhamed Ndiaye mii nga sàngam laa jublu ci moom moom laa ko bëgg a jox mm-hmm. nga ne non du fi amee xam nga yow mushrik nga parce que yow yaay kan yow ba war a opposé yàlla ndax yàlla ki koy opposé xanaa dafa waroon a toll ni moom daraja mm-hmm. wala maqam moo tax mu ne fal xaasidu lmuaaridu li filihi laa tatamannaw fadla baadin tuubu mu ne fal xaasidu ki iñaan almuaaridu mooy opposé li filihi ci jëfu yàlla te yàlla moo ne wala tatamannaw ma faddala allahu bi baadukum ala baadin yàlla nee na bu leen bu leen bu leen bu leen bu leen di naagooti bu di mébétati xéewalu ñenn ñi ci ñi ci des nit bu la yàlla joxe xéewal gu ëpp gim la jox yàlla nee na bulko ko ñee ndax ñee gu yàgg gi itam ci iñaan la lay mujje jàppal ne yàllaa ko jox yow it nga loolu laa tatamannaw fadla baadin tuubu yonent bi nee na laa xibtata illa fisnayni fisnayni rajulun ataahu llahu euh, quran fa huwa yatluhu wa yuallimu ana allay wa atrafa annahar wa rajulun ataahu llahu almal fa huwa yunfiqu fi sabilillah yonent bi nee na ñaar rek lañu war a ñee waaye kenn waru leen iñaane ñaar kese waa joo xam ne yàlla jàngal na ko alquran ak xam-xam mu koy jàng fu mu toll di ko jàngale fu mu toll kooku yiwum kenn xamul nu mu toll kooku dañ ko war a ñee ñeewu roy ci moom wa rajulun ak waa joo xam ne ataahu llaahu maal yàlla jox na ko alal ci boor yëpp foofu yunfiqu fi sabilillah mu koy dépensé ci yoonu yàlla kooku teraanga ji koy xaar ëllëg ku mënoon a ñee di nga ñee kooku waaye nag doo leen iñaane mais bu fekkee ki iñaan la nag moom ñaar ñooñu ci boppam xam danaan du ma ko am ñoom duñ ko am lu mu xam nag dana ko def te mari day taali ci kii ñu weesu lay mujj kooku iñaan généralement ci njibarkat yi lay mujj ji pour teraanga jooju kooku am mu xañ ko ko te dog du mën a nekk bu ko defee moom mu alku alagaale njibarkat boobu nga xam moom jotoon na alku ba pare falxaasidu xaqan falaa yasuudu yonent bi nee na alxaasidu laa yasuud alxasuudu laa yasuud falxaasidu aji iñaane xaqan ca dëgg-dëgg falaa yasuudu du doon sàng mu koo gis ñu ne ay pour pourtant de diplôme yi ji diplôme yu dul jeex la am ñu ne pourtant moom de xam-xam maari détail moom de professionnalisme maari détail waaye moom de mënta am liggéey ba tey xoolal xol bi xol bi moo am problème xol baa pan bari na koo gis ñu ne pour pourtant de ahliya yëpp maanaam kii daal jaadu woon na pour mu war a am terang yëpp mais ñun daal xamuñu lu ko téye dañ naan dañ ko liggéey fekk dara moom moo liggéey boppam parce que moom moo téye xolam mm-hmm. yonent bi moo moo wax ne nit ku iñaan du yilif kenn mm-hmm. xaw ma nag dina yilif boppam walla déet waaye moom du yilif kenn mm-hmm. alxasuudu laa yasuudu moo tax mu ne fa xaasidu xaqan fa laa yasuudu wa qalbuhu te moom xolam taxriqu day lakk rek fa bu doon safara buy buy takk man damay wax ne toujours téere yi dañuy wax ne jikko bi gën a tabe ci jikko yi ci gën a baax gën cee tabe gën cee fiable gën gën cee fidèle mooy kiñaan jalousie ñu ne waaw lu tax mu ne parce balaa rey kenn rey borom ba pare moom ki nga iñaane balaa dee yow nga yow yaa njëkk de xaw ma koog nag dina dee am déet mm-hmm. moom waa ji yuaridullah dafay dafay opposé yàlla ala axlaaq yi ci mbindeefam yi moo tax yaxriqu nafsahu day lakk boppam fala taxlibu te du du gañe mukk du mas a gañe kon nag waxit na nga wéetal bi rabbika ci sa borom wala tuarid te bul opposé xereñam ndax moom mooy jëf li ngay daj ci iñaane nit loolu wax dëgg yàlla boo ko dajoon ci seen la sa xol wéetal sa borom yàlla jox la li lu raw sax ka nga kon wala tuaridi bul opposé li fadli ci ngëneelam fi ahadin ci kenn adibu yow mu euh, yeewu mi te yaru da na nga bàyyi jumlatal amraadi mboolem feebaru xol yi fi xulub yi kal kibri comme rëy baaxul kibri xeet la ci shirk wal buxdu ak bañ nit ñi foo toll di ciifatu rek dañu soof kenn sooful yow mi yaa soof yaa ngi bëgg a rey nit ñi fala taswibu loolu jubul baaxul sallim bi qalbika na nga jox sa xol jébbal ko wala tuzi ahad te bu lor kenn alal lisaani ci sa làmmiñ waaye nit koo xam ne critiqueur nga ku toog nga critiquer ku la romb nga critiquer waaye ñii duñ dara mais bu dee ñëpp duñ dara yow yaay dara yow déedéet yow yaa dul dara yow mii rek ñëpp dara lañ ba mu des yow alal lisaani sha'nuhu mbiram tasribu alkande rek lay jur ci nit euh, yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa dafa toog ci jàkk ji ne xaw ma lu xew waaye jàkk ji bunt bii léegi benn waay nitu àjjana dina fi dugg ñu jekki-jekki benn waay ci wàllam dugg ñëpp xool ko noppi ñu julli mu toogaat ca suba ga ca waxtu woowu ne xawma lu xew waaye léegi léegi balaa yàgg benn nitu àjjana dina duggaat ci bunt bii même bunt boobu ba mu waxoon démb même waa ja mu waxoon démb ba ci jàkk ji yéemu leen parce que yonent bi di wax lu dañ te kii la waxoon moo ñëwaat tey te ginnaaw suba ko mu waxtu wa jotaat mu ne xaw ma lu xew waaye ma ne nitu àjjana dina duggaat ci jàkk ji ci bunt bii ñu gëstuwaat yem ci waaja même waaja dugaat mm-hmm. mu dugg ñetti yoon mm-hmm. ñoom ñu ne seen xel ah kii de am na may Abdullah ibnu Amr ibnu As comme xale la woon ne noonu lii dinaa xool lal la bàyyi ba waa ji dem mu topp ci gannaawam dab ko ne ko papa papa mu naa mu ne ko man de dafa am benn jafe-jafe léegi ak sam dama doon xuloog sam daal ba mu ba mu génne ma waat ne ma kër gi duma fi fanaan fii ak ñetti fan ba daal waat googu moo tax man ma bëggoon boo ma mënoon a fat ñetti fan rek bu ko defee après ma dem jubóog moom mu nekk amul solo ah doom kañ dem yóbbu ko këram nee na mu ñëw fekk muy këru daara mu nekk ak waa ji ñooy fanaan ci benn néeg nee na pour mu bëgg a xam li waa ji nekke nee na gis naa ne daal bu ñu demee jàkk ja geewe ba ñëw dafay defar reer bu ma des ñu reer après mu lal fëgg lalam ba mu baax tëdd di nelaw ba ñu ba ñuy waaj a salaatu mu jug sangu jàpp ànd ak man ñu demaat julli ji ñetti fan yëpp nag loolu lay laa gis ci moom gisuma lenn daal lu muy def loo xam ne yokk na ci li jullit naturel war a def euh, illa annahu ida taarra fi llayli zakara lu dul daal bu ëlbatikoo ci lalam bu fu mu ëlbatikoo wa taqallaba naan laa ilaha illa tëddal maanaam acte bu mu def ci nelawam rek dina tudd yàlla gisaatuma nag lu ëpp loolu bi ñetti fan yi nag matee moo ne ko nag papa maa ngi lay sant di la gërëm maa ngi lay yëgal nag maag sama baay jotewuñu dara euh, dil rek laa defoon pour bëgg a xam li xew mu ne ko ah lu xew mu ne ko yonent bi moo ñu wax ñetti yoon ne nitu àjjana dina dugg ci buntu jàkk ji ñett yëpp doon yow mu bëggoon nag xam lan ngay def te nun dun ko def pour ma mën a roy ci loolu waaye bi ma ñëwee gisuma leen loo def lu yokk ci ñun li ñuy def mu ne ko ah yaa walidi kamara ay te ni nga ni nga gisee rek noonu laay dunde defuma dara loo xam ne nii yéeme na lu dul daal xam naa lenn xayra anni laa ukinnu li ahadin shay'an xam naa ne daal euh, euh, dencaluma ci sama xol kenn lu ñaaw man daal xam naa ne yéenewuma kenn kenn kenn ci àdduna lu ñaaw xale ba tëb nekk papa loolu la kenn manul loolu la kenn manul zalika alladi kunna la nutiquhu lii mooy mbir mi kenn manul mu ne ko yow kay lii nga lii nga demee àjjana ndekete naafila yu bari koor gu bari am na lu ko gën mooy raxas sa xol ba mu set vite nga jox ko borom bi subhanahu wa taala te bañ a kenn mu ne nag laa tey asan bil faiti taqulu law fa law bi qawlika ajal maxiibu wa qul fa ma shaa al ilahu kaana wama lam yakun ma eh, wama lam yasha lam yakun aribu eh, na nga xam ne dafa am benn baat bu nit ñi tàmm di ko wax mooy eh, boo demee wala sudoon doon hmm. wala suma defoon hmm. mooy law ci arab dañ koy tere ci tawxid law kaana nangam bu nangam de amoon bu nangam amoon généralement ki koy wax dafa désespéré bëggoon dara am amul nga ne non ñu ñoo def erreur parce que bu nangam amoon non bu ñu defoon nangam déedéet doo mën a def nangam boobu ndax du coobar yàlla mm-hmm. laa tey asan bul désespéré bil fa iti ci lu la échappé taqulu nga naan law ak a neexoon xamoo ne fal law baatu ak a neexoon bi xawlika ci sa wax ajal maxi bu pertement la yow daal lii bëgg bëggoon nga ko programmé nga ko demewul noonu mais jeex na nii rek la waroon dem waaye naan su ma demoo nag yow demoo su démb doon tey euh, su nangam yooyu yëpp mënul nekk parce que yooyu ngay programme naan su ma dellu di ndaw su ma dellu su bu démb doon tey démb du ma sa nekk tey nii la mënoon a demee parce que mbir yëpp dañ koo programmé woon ki def bac amul bac mu naan non ci ci mat bi laa daanoo fa nga war a daanoo donc léegi nga dem gëstuwaat gëstu ne o oh, examen yi bu amaatoon du ma déedéet du amaat ndax amoo mhm. yàlla moo programmé woon ne doo am mhm. comme doo am nag moom mooy organiser système bi ngay dul amee mhm. moo tax xul neel rek fa macha ilahu lu sob yàlla kaana looloy am yonent bi sallallahu alayhi moo ko jàngale euh, ci hadis ne bu leen waxati ne law kaana nangam bu bu nangam amoon xulu macha allahu kaana nee leen rek lu yàlla bëgg noonu lay am te fekk Aïcha moo toog moom nankaan waaw bu ñu defoon nii xam nga lii du am bu ñu defoon nii lii du am mu ne ko bu leen waxati loolu nee bu leen waxati law law baat la boo xam ne nii dañ koy tere neel rek lu yàlla bëgg loolu am xam nga léeg-léeg nit ku ku ko jege dina feebar hmm. mu nekk ci di faj yóbbu fu ne yóbbu fu ne ba kooku faatu bi faatoo analyse ya mu defoon ñuy soog a xam ne feebar sàngama ko daloon ñu ne pourtant diw de ku ko man la kooku moom bu ñu ko teeloon bu ñu ko teeloon dafa waroon a dee moo tax moo tax yàlla bul jéem ut pexe ci dogalam moo tax mu ne falaw bi qalbi bi qawlika ajal laa yanfau laa tasafan bi ma mada tutiibu tuniibu hmm. falaw sa wax bi qawlika maanaam wax ji ngay wax naan euh, law ajal laa yanfa'u man la jariñ soo demoon soo demee wala bu bu doon laa ta tey asan laa ta safan bul jàq bi ma mada ci li wëy tuni bu ngay del tuti tuni bu ngay dellu ci yàlla yàlla moo ko wax ci suuratu Hadiid li kay laa saw ala ma faatakum wala tafraxu bi ma aataakum mm-hmm. yàlla bëggul ngay mettit lu lu la weesu wala ngay euh, ngay ci li nga am ba mu ëpp te loolu ñaar yooyu yëpp xeet la ci ñàkk delloo yàlla am teraanga ju ne li jomb ma sama yaaya liggéey teraanga ji kon utal nga ko ku ko ku ko liggéey mm-hmm. euh, nattu dal la nga ne xamoon naa ko parce que diw mm-hmm. loolu ñaari yooyu yëpp yàlla da koy tere xat jafa ndax dafa fendi xalamul qadri mm-hmm. maanaam xalim ak dogal gi fil azali ci démb yàlla nee na rufiya al aqlaam wa jaffat suhuf man mi doon bind pare naa ci li ma doon bind daa ji ci boppam wow na xalima ji fendi na kon bind du amat yëg na ne yàlla benn yoon rek la dogal benn yoon la mu dogal yëpp ca azal la ko dogale ca kun la ci benn yoon ca la pare du changé du changé ti nag hmm. waaye mi nga xam ne dogal yi daw na ay milliards yi at ngay soog a juddu yow man nga fexe fexe yow ba dammawaat xalima bi effacé lañ bindoon mënul nekk xat jafa qalamul qadri fil azali wa sallimil amra kon jébbalal mbir yi rek yàlla xasa loolu masubu yiw lay doon ci moom yiw lay doon ci eh, yow Euh, fala yaziduka al asa uxayya illa li bodi xadratin ajibu dogal yi yàlla dogal te mu mu war a am métitlu gi nga koy métitlu du la yokk lu dul gën a sori yàlla maanaam yow kon ñaari problème ngay am ndax yow lim dogal neexula nee nga ba pare loolu day juraat nga gën a sori yàlla ajibu nañ wuyu ci loolu tuuba texe nag li liman sallama ñel na ki jébbal kulla amrihi mbiram yëpp bi rabbi ci boromam yuxsinuhu dana ko rafetal taqibu ak mujjam yàlla dana rafetal ak sot mujj tuuba li man allaka min iradatin texe ñeel na ki nga xam ne mu ngi jël e, yaakaaram yëpp ak namm-nammam wékk ka ilal ilahi ci yàlla yusulamu dinañ la musalal alqulubu xol yi xamoo ne rabbi sama borom e, fala sharika la shabiha amul kuñ koy bokkaale amul ku mu nirool fi mulki yi ci nguuram naam fala musiba kenn kenn du ko dab bokk na ci xeetu yi ñuy tere ci jullit bi ci xeetu bokkaale yàlla la mooy di ñaan ku dul yàlla ad daawatu ndax ad duaa huwa al bi nee ñaan mooy jaamu yàlla dëgg-dëgg nag gis nga tawxid mooy wéetal yàlla mais jaamu yàlla dëgg-dëgg mooy ñaan ndax nit ku nekk këla yilif boo jaaxlee ci koo jëm ci moom tey bu tabaski jotee euh, xale bi danaan day dem ci papam nekk papa jëndal ma yére yaay jëndal ma nàngam maanaam nit ku ne boo jaaxlee yow cëkka nga jëm kooku nga yaakaar léegi kon ki jaaxle di ñaan keneen ku mu ñaan ku lu yàlla loolu la gëm loolu tax yonent bi ne addu'a ñaan huwa al ibada mooy jaamu yàlla yàlla nee na qul maa ya'ba'u bikum rabbi law laa du'aa'ukum yàlla de faalew leen bool bu dul woon ñaan gi ngeen koy ñaan ndax yàlla moom dara sofu ko kon nag euh, bu ma nee bëgg a dogal dara jàmm bi di ñaan di toroxlu di jooy moom ci waxin da xam ne kii kat yëg na ne moom mooy dogal ba defee mu defal ko la mu bëgg moo tax mu ne wa daawatun li gayri rabbil xalqi shirkun bi ayi nawi yaa aribu daawatun di ñaan li gayri rabbi ci kurul borom bi rabbil xalqi borom mbindéef yi loolu shirkun bokkaale yàlla la bu wér bi ay naw ci façon bu ne nag yaa bu yow mu xelu mi ndax bu dee foo jaaxlee dem dem ci kenn foo jaaxlee dem ci kenn foo dem jaaxlee dem ci kenn ba pare nankaan nag man nekk yaakaaruma la gëwma la man yàllaa gëm waxoo dëgg li ngay def li ngay wax noonu ak li ngay jëf dafa wuute yàlla yow laa yaakaar yow laa gëm mais foo tiitee foo jaaxlee keneen ngay woo keneen ngay ñaani ji mm-hmm. ah wax waxoo dëgg nag moo tax mu ne kullun yunaqitu bi sixatil maqal ñaan ku dul yàlla dafay wuute ak dëgguk wax ji nga wax ne yàlla nga gëm te wax ya mooy ash-shahadatu wax ji nga waxoon ne la ilaha illa allah lahu ci moom mujibu di wuyu maanaam la ngay jëf dafa wuuteeg la laa ilaha nga wax te foo jaaxlee daw ci keneen loolu euh, da nga dafa wuuteeg li nga wax mu shahada bi mooy tën fii li xayrillahi yow yaa ya yaa dàqoon lu dul yàlla fil ibada ci sag jaamu yow yaa ne woon lu dul yàlla de waruñu koo jaam ba pare tey jii nga am problème wa taqbalu ngay nangu ak yaare yeneen yooyu nga dàqoon mm-hmm. daa loolu xam nga am rax la mm-hmm. da nga koo xam nga loo bëgg boo bëggee woowal yàlla boo jaxlee woowal yàlla loolu nag taxul ñu ne la nitu yàlla yu baax yi na leen noonu déedéet wawaali na nga bëgg ahlallahi ñooñu ñëñ yàlla yi maanaam nitu yàlla yi na leen bëgg soppaleen ngir bëgg giñ bëgg yàlla waaye laa ibadati waxuñu la nga jaamu leen te jaamu leen mooy ñaan leen wa aadi na noonu ahla sharri ñoñ musiba fal hurubu nga daw leen loo man mais nag bu leen rëbba itam mm-hmm. ndax eh, laysa laka min amri shay waxdab na nga mer yow jullit bi li xadabillahi ci meruk yàlla yaa maxduub yaa maxbuubu yow mi ñu sopp boo bëggee jege yàlla lii merloo yàlla na la merloo maanaam li metti yàlla li neexul yàlla na la naqal yow wabid te na nga sori anit baal lii na ci ñi réer ñi réer na nga leen sori parce que koo dégg maan siñ dama bëgg a jub yow fexeel ba ànd ak ñi jub rek waaye fekk ñi réer nga def leen copain naan non man damay ànd ak ñoom rek mais gëw ma sax liñ da nga déedéet da mujj daanu ci ñoom fal maxdubu ak ñi nga xam ne ni moom lañu ñu mere muy xëy na maxdubi alayhim wala doole na ngay góorgóorlu di gëstu sa xol foo toll te laa tamanil makra li zaatillahi fa hiya almahibu daa iman tahibu bul dem itam ci sag mbaax gi ba jàpp ne yow daal moom dara mënatulaa tere dem àjjana dara dara loolu bu yàggee te am na ñu ko gëm ñu am na ñoo xam ne logement yi ñu war a dugg sax pare na ñoom ci seen imagination ba pare gis nga yooyu seetaane kum ko xam ci yaw dafay dugg léegi nag ci kóolute gu ëpp googu ca la lay naxe di la nax di la nax ba nga daanu euh, laa manu makrallahi illa alqawmu xaasirun seydi abdul qadir al jilaani ñu ci yàlla bu mag la nee na dafay jaamu boroom di jaamu boroom ba benn leer dikk ci kanam ci guddi guddi fees dal néeg bi mu nekk ko yaa Abdul Qadir qad ahlaltu laka ma xaramtuhu yow Abdul Qadir man sa borom daganal naa la lépp lu ma araamaloon ci sama yeneen jaam yi ndax satisfaire gooma satisfaire rek ca saa si mu yuuxu ne que ixsa yaa pertal yow seytaane yow mi rëbb nen naka la ko wax mu mel ni làmp buñ fay ñuul kuk seytaane ci ëllëg sa mu def jëmm ñëw ci moom ne ko Abdul Qadir nan nga xamee ne man la te ci gis nga gis nga xaal bi daaneel naa fi juróom-ñaar fukki junniy ponkal ci ay nitu yàlla ci xaal bi mooy jaamu nañ seen borom ba jàpp ne àgg nañ ma wax leen lii ñu soppi doxalin yàqu dee dem safara yow lu la musal ci lii mu ne ko benn principe rek laa am yàlla moo ne maayu baddal xawlu la day sama wax du changé te moom mi ne woon daganal naa mënul ñëwaat ne araamal naa moom mi ne woon araamal naa mënatul dagana la ñu des mooy yàlla buy feeñu jëmm eh, du ko feeñoo place ndax yàlla tënkuwul ci place mais yow bi ngay ñëw sa leer ci place la génne ma xam ne kon mbindeef nga li ngay mbindeef moo tax nga mën a ñëwee ci jihatu ndax bu doon jëmm yàlla da nga jekk-jekk rek muy leer di leer doo xam fu mu jóge fépp ay leer mais yow sax doyet yi moo tax nga mën a indi sa leer ci benn côté xam nga loolu rek xam-xam la mm-hmm. moo tax mu ne laa tëmanil makra bul wóolu pexem yàlla li zaati laa ci jëmm yàlla fa yel mahibu ndax ku ñuy ragal la te dara safu ko de yëg nga ne ñi mu bind ñëpp bu leen duma woon wàññiw ko dara moom moo tax foog ne baax nga ba àgga ci mbaax ba yow yàlla du la alak fa la njuumte yam ki gën baax ci li yàlla bind yoon te yàlla muhammad la tudd te yàlla moo ko wax ci alquran bii bu officiel nekk wala qad uxiya ilayka waxyu naa la yow mii dégg nga dégg nga bu baax liñ lay wax wa la alladina min qablika ak ñi la fi jiitu woon maa wax ne la in ashrakta boo bokkaalee boo ma bokkaalee kenn ca saas yi li may njëkk def mooy la na amalu ko damay xotti say jëf yëpp doo deseeti dara wala takunan na après loolu nag gannaaw bi ma xottee say jëf di nga bokk minal xaasirina ci ñi perte te dinaa la duma yeneen bi lañ ko wax ci alquran bés bu jot ñu jàng ko suuratu zumar yow nag na ko wax nit ñi ba pare wax ne ko waxoon naa ko yonent yi fi jiitu ñëpp laa waaw yonent nag moo gën a baax ci lu baax ku baax rek yonentaa ci gën a baax ñi baax ñëpp ci yonent yi yonent yàlla muhammad moo leen gën a baax moom la ñu wax waaj ji kon fa yéen ma bu yàlla ku raglu la intimité kenn du ko sa kii li waa ji naan bu ma kenn këllikalee yàlla kenn du ko këllikalee daa iman te hibu na ragal kii matu la ragal mat naa ragal ndax bis boo demee ba am satisfaction ak fierté ne daal dépassé nga fu ñu lay duma mhm. boobu nag nga nar a yàqoo nit yàlla yi koo ci gis lu mu kawe kawe ci yàlla bu toogee day lox mel ni ku toog ci nen ndax xam ne am na ku muy fekk ji te xamagul ndax satisfaire na comme déet na nga fexe itam Seydina Omar ibnu Xataab keroog bañ ko jamee euh, mu nekk ci jàkk ji deret ju bari génn ci moom dañ ko assassiné deret ju bari génn ci moom muy jal jal yi di xool nag bët yi ñu tëral ko ci suuf muy xool bët yi bët yi mel ni tabaarakallahu nenu bànjool yi di wëndeelu ci nit ñi di wëndeelu ci nit ñu melokaanu ku ragal comme ku tiit ni ngay buxee say bët naan jal jal jal jal abdullah ibnu omar foog ne góor gi dafa jaxle wala dafa tiit mu jël bopp bi teg ko ci tànk bi mu euh, tëral tànkam doomam la tëral tànk bi jël bopp papa ji teg ci mu gis bët yi di tourner rek mel ni ku gis loo ragal wala ku jëm foo ragal mu ne ko papa looy looy rab rabi nii papa yow mi nga xam ne baax nga gëm yàlla wakaale woo ko kenn topp ndigalu yent yàlla Muhammad ba mu gërëm la nga topp ci xilaafa Aboubacar ba mu gërëm la nga jiite jullit yi fukki at yàlla yoo xam ne mosoo fi def faux ba ñëpp gërëm la yàlla defal la teraanga ju toll ni nga war a am daraja martyr léegi di tiitati papa looy tiit wàcce nga mu jekki-jekki moom góor gi euh, euh, xool bët yi ci kaw ne ko man anta yow lakkan mu nekk ko ana ibnuka abdullahi man maay sa doom abdullahi ibnu omar mu ne ko daara si alal ardi wàccil sama bopp bi nga tekk ci kaw suuf sama bopp bi nga jël tekk sa lupp bi wàcc ko gëdd ko wax ko ko donte amatul doole xale bi xale bi xale bi wàcc ko mu nekk jaykat yu bari jaykat yi ngeen doon jay ngeen Omar ba mu war a dellu dajajeeg boromam nga xam ne luy rek la tey lay war a régler luy compliqué tey la war a compliqué ngeen bëgg continuer di ma jayaat euh, aka neexoon kan mooy Omar kan mooy Omar aka neexoon ma dem ci sama kanamu borom mu ne ma doo dara effacé ma benn yoon ma dee nga naan maan yaa def lii yaa def lii yaa def lii lii la mujj a wax ne tekk ba yàgg wuy ji borom xoolal góor gu góor gur rëy may yow nga xëy rek ne àggana toog loolu xeet la ci liggéeyu cheytaane yàlla ñu ci yàlla musal warda bi ridwanil ali wa ahlihi tudiru ma xaqin kama yatibu bokk na ci jullit bi li mu war melokaano mooy warda na nga gërëm bi ridwanil ali ngërëmal yàlla maanaam lépp lu neex yàlla loolu la na la neex wa ahlihi ak ñoñ yàlla yi maanaam nitu yàlla yi nañ la neex xanaa xamoo bokk ci feebaru xol ñu ne la diw nitu yàlla la waaye xëy na yow bokku leen foo leen foo leen loo leen gëm wala bokku leen foo leen tënku nga bañ kooku xamoo ne boo ko bañee te muy nitu yàlla yàlla nga bañ moo tax Moulay Tidjani jàngal nañu ne bokk na ci alaamatul imaan an tadira ma al xaq xaysu daara maanaam bokk na ci mandargay gëm mooy fu dëgg jóge rek donte yow fa mu jóge bëggoo mu jóge foofu nangu gi nga koy nangu mandarga la ci ne yow nitu dëgg nga nga bañ itam neen donte fi nga bokk la jóge loolu mandarga la ci gëm loolu nag ñu bari mënuñu ko ndax xam naa niveau la noo tax mu ne tëdiiru na ngay wër maa xaqin ci dëgg kama yatibu ni mu teeye rek wax lis li ahlillahi fi sahabati wajlis maa taqi aya mahbubu wax lis na nga sellal sa xol li ahlillahi ci góoru yàlla yi fi sahabati ci ànd ak ñoom dañ wax ne ku baax te danga àndul ak ñi baax waaye képp koo xam ne bi ngay faral di déglu ku baax mm-hmm. xam nga waxtaan yi ku ngay faral di déglu mën naa jur ci yow ak mbaax kuy toog ak ku baax itam dana la jural mbaax ndax yonent bi moo ci xadis ne toog ak ku baax ak toog ak ku bon dama leen di jox misaal mooy nit koo xam ne dañuy jaay parfum kii jaay parfum nga dem ci moom te amoo loo jënd parfum mais nga toog ak moom xam nga même bu la mayul ci parfum sax dana la xeeñ mm-hmm. xeeñ googu mu lay xeeñ mooy mbaax mbaax boo nekk ak moom boo toogee ku baax même moom bu la waxul baaxal mbaaxam rek dana la muur ci jamono yooyu nga toog ak mu ne na ngeen wattu toog ak ku bon ndax toog ak ku bon mooy nga dem forgeron bi nga xam ne nii mu ngi ëpp euh, tabarakallahu machine am ngir defar ci nee na euh, mënoo fexe fexe ba doo fa jële ñaar mooy xet gu naqari ak yére yu tilim mm-hmm. léeg sax ay fett ay fett ferñeent dal sa yére foofu koo yàq mm-hmm. loolu moo lay wan ne nit dafa war a ut ku baax ku mu àndal wala ñu baax ñu mu àndal ndax boo àndoon ak téeméeri nit kenn ku ne am na yenn jikko ju baax joo mën a ci moom waaye nit ñi nag dañuy ànd ak nit di xool ay sikkam mm-hmm. boobaa nag bañoon ànd gi mooy mooy doon gën mm-hmm. wajlis na nga toog ma at taq yi ak ku ragal yàlla yaa mahbubu yow ñu sopp ndax ku bëgg yàlla sopp la da ngay ànd ak kum sopp mm-hmm. ndax ñoom hum ahlu rabbi ñoom ñooy nitam yi yàlla dafa am famille Euh, yonent yàlla Moussa alayhi salaam dafa am bés yàlla ne ko Moussa loo ma defal ñoom ku bari woon xikma la mu ne ko ah jullil naa la wooral naa la génne naa sarax def naa lii def naa lii yàlla ci waxin mu ree nekk déedéet julli gi pour yow la julli gi ëllëg moom lañ lay leeralale sa bàmmeel mu ne ko sarax yi ëllëg moo lay jot ci safara mu ne ko koor gi mooy junnatun minan naar yi mooy défi bi nga xam ne moo lay teree dugg safara kon en réalité yow defaloo ma dara mu ne ko kon yow yàlla lan lañ lay defal loo moom mu ne ko waali man waalaa nii wa aadi man aadaa nanga nanga méngoo sama nit maanaam na nga xaritoog sama nit te noonu sama noon ba ci nit rek boo xamoon ki nga gën a bañ ci àdduna yow sa xarit intime bi def kooku copain tout le temps mu ngi wootanteeg moom téléphone di di poster ay photom xam nga kooku da nga génn ci moom yàlla noonu la mel yàlla dafa am ay xaritam ku leen noonu mu génn ci yow dafa am itam ay noon ku leen xaritoo mu génn ci yow moo tax mu ne hum ahlu bi ñoom gaay yàlla yooyu ñoom ñooy gaayam waalihim nanga nga leen méngoo wax sini te na nga rafetal ilayhim ci ñoom as soxbata kànd euh, bu ko defee xat tusibu nga nga nga gañe cagnotte bi ñun dañuy tàmm ne diw mooy suñu sëriñ diw mooy suñu nangam mais duñ lay faral di teral te loolu baaxul euh, ànd gi mooy nit ki bu baaxee da ngay jéem a di ànd ak moom mais dañ koy jéem a teral parce que moom nitu yàlla la te nitu yàlla loo ko defal yàlla di ciy bég léegi loo terale nitam rek moom yàlla gën naa sawar ci ay say mbir mu ngi mel ni tey da ngay gis nit ko ko fonk moo xam ministre la moo xam député nga xam président de la république doom bi am ñaari at daw song la te yaa ngi ci saalu papam noo koy def xam nga da koy jël aj ka sa kaw di gëm gëm lu ne bëgg nga doom fekk gëmu gëmoo ko sax xëy na mais xam nga toog président doomu président am ñaari at ñetti at daw rek song la nga mbéj tël xaw ma ndax sa séjour bi dina neex palem déet waaye bootul président dina génn ci yow mm. du dëgg waaw loolu moo tax nitu yàlla yi nag yàlla amul doom waaye daanaka ñooy ay xaritam ñooy ay njabootam bu hmm. ko defee loo leen gën a jege loo gën a teral euh, gën a jege yàlla waaye waxuñu nga jaamu leen jaamu leen moom waxuñu ko hmm. parce que ñoom yaa ngi leen di bëgg ngir liñ bëgg yàlla hmm. boo bëggee defaat nag yàlla nag moom fa la njumte bi ne ndax almaru maa rafiqihi yushariku bi xalqihi wa xulqihi nasibu lan moo tax nit ñu ne ko na nga uti ji koo àndal ci yàlla mu ne parce nit moo bëgg a toppandoo nit da dafa bëgg a toppandoo comme àndal rek day bëgg a mel ni yow ba ci sa colin ba ci waxin ba ni ngay doxe ba ci sa gëm-gëm léegi nag comme kii moom baax na ba pare yow bi muy baax fekke ko waaye baax na ba pare ñëwal nga ànd ak moom ko defee boo royee ni mel ci saa si looloo lay baaxal almaru nit ma yi mook àndandoom yu shaariku dañuy bokk ay jikko dañuy day bokk moom bi xalq yi ci bindam da ngay gis ñoo xam ne nii boo leen gisee rek xam ne kii njabootu diwlin ci ci melo de ndax na muy soloog na muy doxalee wa xulqi yi ak jikkoom am na ñoo xam ne sax weesu nañ foofu nee nañ nit boo ko bëggee da ngay dem ba foofu niroo sax kanam na si bu cër la kon kon na boo bëggee ku baax rek da mel noonu wa man yu xaaribu waaye nag bu leen bañ de wa man yu xaaribu ko kuy xeex ak bi ahlillahi nit yàlla yi ñu ne xanaa jaasi la jël mu ne déedéet bil buux di ci bañ leen ci sa xol mm. boo commencee bañ rek yaa ngi xeex wal kay di wala nga ne leen fexel fa daa loolu xurubu xeex la ma al ilahi ak yàlla yàlla nag kuy xeex ak moom car sa ngemba jarul nga koy takk bu dëgër ndax léegi nga daanu mm. yàlla ci alquran ñaari xeex rek la wax ne day xeex ak nit te wax dëgg yàlla yàlla ëpp na lool yàlla ni mu toll ku mu ne day xeex ak yow xanaa da lay kay la bëgg wax mm. mooy kiy lekk riba la wax ci alquran ne képp kuy dunde riba yaa ngi xeex ak yàlla mm-hmm. na nga présent na nga préparé fazanu bi xarbin min allahi mooy ñiy lekk riba beneen bi xadiisu qudsi la mooy képp kuy noonoo nitam wa man aada li waliyan faqad azantuhu bil xarb mm-hmm. moo tax bul bañ nitu yàlla mukk mm-hmm. ndax yàlla yu daafiu mooy defendre an ahlihi ay ci ay nitam fa tuubu na tuub te bàyyi bañ nitu yàlla bañ nitu yàlla ak fu nitu yàlla nitu yàlla yi da gis nit ñoo xam ne fenn lañ bokk di bañ ñeneen i yàlla yu bokk feneen fekk njuumte mu ngi noonu ndax nitu yàlla fu mu mën a nekk ak nu mu mën a bindoo tey bu mu mën a yor nitu yàlla la tudd boo ko attaqué rek yàlla ngay dab tawfiqu rabbi tawfiqu rabbina ala almuxaalata li ahli dikrillahi hum majzubu safa qulubuhum li zikrillahi hmm. jaalisuhumu lillahi qad yajibu hmm. euh, nee na euh, maanaam xéewalu yàlla daal ak jàppale la hmm. nekkul lu dul alal muxaalata di ànd ak li ahli zikrillahi ci ñi tudd yàlla fu ñu toll hum ndax ñoom majzubu yàlla la xëccal boppam maanaam dafa mel ni yow melokaan yi ñu fi jàngale yëpp da nga ne manuma ko mu ne la am na bu gën a gaaw mooy fekkal fekkal ñi mel nii nga ànd ak ñoom ndax ñoom safa dafa sell qulubahum seen xol li zikrillahi ci tudd yàlla kon jaari suumu da ngay toog ak ñoom rek lillahi ngir yàlla ndax ñoom xat ya jibu wuyu nañ yàlla ba pare comme yow mën a goo wuyu yàlla yow léegi ñoom dangay dem ci ñi nga xam ne nii ñoom wuyu nañ yàlla ba pare nga ànd ak ñoom da nga bàyyi nag shirka ka bokkaale gi istain na nga dimbalikoo bi rabbi bi rabbil ahad ci yàlla mi nga xam ne ni kenn la laa tutli waaye bul gëstu al xam-xamu xay bi li koy tax yiw ndax dangay ngay mm. lu ne nga lijjanti ko lu ne nga xool euh, luy xew suba luy xew ginnaaw ëllëg dinaa dem ci euh, diw mu wax ma mu seetal ma lan lan lu muy seet li muy seet du ko gis li muy seet bu ko mënoon a gis moom day xam kañ lay dee mm. wakkil ilayhi nafsa kon wéerul ci yàlla ci sa bopp wal qalba soxol sa xol nga dimbalikoo bi naw bi nuuri tawxiidin ci leeru wéetal ko lahu raxibu nga koy xemmem foo tollu loolu jàmm bu ko def rek mën naa yegg fi ñu baax ñëpp di yegg yàlla ñu fa yàlla yeggale bi max da fadlihi wa juudihi wassalaamu aleykum wa rahmatullah